alors le 2 août 2020 début euh, travaux euh, reconstruction bu euh, marché Sandaga bu Ndakaaru terrain bi nga xamante ni commune Ndakaar moom moo ko rek daal di jënd ci 5 février 1927 la woon tey jii nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekkoon yóbbu nañ leen champ de course mais mbir yi fan rek la dal di toll tey un jour au Sénégal un jour dans le monde ñu ànd ceeg yaay Kumba Ndiaye ñaari fan ci weeru août atum 2012 si la ñu taxawal hôpital central de Dakar ñu ko doon woowee itamit hôpital indigène waaye atum 1956 hôpital bi dañoo changé tur bi tuddee ko hôpital Aristide Le Dantec Aristide Le Dantec nag ab médecin français la woon nekkoon tamit premier directeur école de médecine bu Ndakaaru ñaari fan ci weeru août atum 2021 tombé ak faatu Louis Dupuy mi fi nekkoon directeur de l'eau et de l'énergie du Sénégal Louis Dupuy nag la ñu jàppee woon baayu baat boobu di sénégalisation ndax ñaari société yi ñu boole woon ci année 70 yi benn bi di eau électricité de l'Ouest africain bi nekk léegi Sénélec ak la compagnie générale des eaux du Sénégal nekk léegi SONES ba tey nag moo fi sosoon itamit usine bu ngenc ak système bi nga xamante ni si moo la ñuy andee fii ci Ndakaaru ñaari fan ci weeru août atum 2001 si le tribunal pénal international international de la haye reconnaître coupable général bosno-serbe Radislav Krstić ci génocide ya xewoon ci réew ma moom nag dañu ko mujjee daan ñeent fukki at ak juróom benni kaso ndax rôle bi mu joué woon ci massacre bi nga xam ne ay junni jullit nag ñoo si ñàkk seen bakkan ca diiwaanu Srebrenica féete réewu Bosnie Herzégovine weeru juillet atum 1995 ñaari fan ci weeru août atum 2012 ci mbirum traque des bien mal acquis lu toll si juróom-ñaari kàngam yu bokkoon ci régime Abdoulaye Wade yoon da leen tere génn réew mi ñoom nag dañu leen jiiñoon duubal xaalis muy Karim Wade Madické Niang Samuel Sarr Oumar Sarr Abdoulaye Balde Tahibou Ndiaye ak Doudou jaañ waaye Karim Wade ak Tahibou Ndiaye rek lañu si mujjee jugé teg si na leen ñaari fan ci weeru août atum 1979 moo nekkoon ubbite premier championnat d'Afrique d'athlétisme ci stade Demba Diop bu ndakaaru compétition bi nag waa confédération africaine d'athlétisme ñoo ko organisé te lu toll ci 251 athlètes jóge nag ci 24 pays woon nañu fa lu jëm ci góor ñi nag Sénégal gagné woon na ñaari médaille d'argent ak Abdoulaye jallo ci triple saut ak équipe bu relais 4 x 100 mètres ak it benn médaille bronze ci relais 4 x 400 ci soxna yi nag Marème Boye moo si amoon médaille d'argent ci 400 mètres Julie Marie Papis mi doon def pentathlon ak équipe bu relais 4 x ñoom nag médaille de bronze lañu ci mujjee am ñu taxaw ci ñaari fan ci weeru août atum 2020 si la ñu tàmbali tabaxaat marché Sandaga doon ab monument architectural fii ci Ndakaaru travaux yi nag ñaari at rek la waroon def maanaam 2022 la waroon pare ñu ngi atum 2024 ba tey jii tabaxu marché bi yeggul ñeenti at jàll na lu tax chantier bi pareegul ban contentieux moo war a bloqué tabax bi. ki nga xam ne da ngay ñëw nga fekk ko ci anam ne ko jógal fii ma defaral lu gën a baax li nga yoroon defe ko ku ku sénégalais nga nekk ci bëgg ci bëgg ci sa bopp lu baax loolu waroo ko bañ mais ban koy bañ lii la xamoon dañoo xamoon ne dañ koy def politiquement bu ñu xëyee jël nu sànni ñu ci àll ba tey la nga xam ne fa leen ñu yóbboon tey jii ku fa ñëw même protection civile tey jii ñoom ñëw nañ ko critiqué te loolu moo bëgg a nga xam ne mooy xew fii ci sànd gi nga xam ne mooy suñu centre commercial bi ne dañ ko ñaanal président ko proté nañ ko defare ne ñëpp ci àndoon muy 14 démembrement de état yi ak nga xam ne ñoom bénéficiaires yi ñun ñëpp ñu defan ko mhm. tey jii dañoo ñëw loolu ñu jël ko sànni ko ci àll ba ñu ko jëlee sànni ko ci àll ba ñu demaat ba yàgg ñu daal di jëlati affaire bi jëlañu fi ci jëriñ bu doy waar jëriñ boo xam ne nii vraiment doy na waar daal jëriñ boobu ban na ko jëlee léegi dañu koo dugal ci politique maire de la ville ne moom moo war a defar maire commune du Dakar Plateau ne moom moo war a defar léegi ñun ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon bloc séeréer toog di souffrir am na ci ñoo xam ne tey dañoo bàyyi seen njaboot ñii ñii génn nañu àdduna ñii dañoo toxu dem fa nga dëkkan am ci ñoo xam mënatu suñoo fay location ñor seen njaboot di dund am ci ñoo xam seenam doom seen njàng mënatut a yegg ñu dagg lépp def loolu àq la te loolu dañuy dañuy wax ne état bi nga xam ne nii moo ñëw remplaçant ñëw taxaw am na ci loo xam ne nii dañ vraiment dañoo amoon ci moom yaakaar parce que ñi fi nekkoon li ñu doon def nekkul loo xam ne ni lu arrangé askan arrangé wut waa marché Sandaga te waa marché Sandaga nag aussi dañu am loo xam ne dañ ko bañal seen bopp soxlawuñu ku leen dimbali ci lenn du seen marché bii nga xam ne dañu fee nekkoon dafa am seen gagne-pain ñu taxaw politique bi ci dugal nga xam ne nii politique politique seen lañ ko bëgg a ñu dindi ko teg ko fële ñoo xam ne parce que deux mille deux mille vingt deux mille vingt deux nga ne woon da ngeen fi jógee 45 suuf ñu defaral leen marché bi nga toog ba dernière minute ba tey jii ñu nekk ci 2024 ba tey jii dara mënu fee sotti te tey jii ñi ngi dégg naan ay 2025 mën naa dem sax ba 2036 parce que tey jii ba tey jii ndaw def naw xam ne parce que ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi war a xam la ñuy liggéey ak la ñuy waxee nii tey jii la ñu fa gis kon dafa am loo xam ne ni dañ ko war a mën a teel a dogale xoddi ko ca ba nga lakkaleegul parce que adduna dafa am lu fay am Sénégal nag dañoo tàmm di seetaan benn mbir dem ba nga xam ne ni dañuy àttu ñu bu ñu demee ba àtt ñëw na ñu taxaw di taxawee nu nen nañ ñëw àttu ci bii dugal seen loxo ci bii nga xam ne moo fi ne 2024 2024 2020 2020 ba 2022 ba 2024 vraiment ñu toog ci marché Sandaga gi defar boo xam ne nii am na li ñu fi bëgg a defar lépp mais buñ ko defar defar bi sérieux ci kon tey ba tey waxatuñ ko mais nag dafa am loo xam ne lépp tuuru suñ muñu kaay nag fees na président de la république muy Bassirou Faye Diomaye ak da ngeen ne jub jubal jubbanti kon ñëw leen ngeen jubbanti li nga xam ne nii moom la fi président Macky Sall demal te Sandaga gi da cee bokk sànd gi nag boobu ba léegi mel na ni sax xëy na nit di sew leen waaye da ngeen noo déggul daa mel ni mais boobu ba léegi ñu jàmbat pour ngeen ñëw xool marché bi saytu ko xool di nga xam ne war nañ caa mën a def suñu suñu suñu suñu suñu suñu xalaat ñu def ko ca la nga xam ne dafa féete ci wàllu nga xam ne nii da koy defar pour moom te boo ko ca boolewul rek yaa ngi ko defar pour lor te ñun jàpp nañ lii ñu defar fii defaruñ di ko defar pour ñun dañ koo defar pour continuer mais defaruñ ko pour ñun parce que la defar xamuñu ca yaay Kumba Ndiaye di ko gërëm uh, bu uh, baax a baax alors uh, tey jii nii ba léegi travaux yi parewul quatre ans donc après la la ñu mën a jàpp Malick. waaw li ñu mën a jàpp mooy blocage am na. Mhm. parce que délai de yi nga xam ne moom lañ jëloon mooy ñaari at ñu defar ci marché bi. Mhm. tegaat nañ ci yeneen ñaari at donc ça veut dire que am na fu nga xamante ni fa la liggéey bi di sooxe je pense que le maire de plateau monsieur Ndoye ñëwoon na fii. Mhm. ba wax ci mbir mi ba wax tolluwaay bi mooy war nañ ko baral parce que aussi c'est inadmissible que marché boobu nga xam ni c'est un patrimoine marché boobu nga xam ne tey euh, euh, li muy polariser ci ay nit yu fay liggéey bëri na lool ñuy koy liggéey di benn bennal jëmale laa ji mu sam s'il y a un problème nañ toog autour d'une table régler ko xool fan la sooxee ñu jubbanti ko euh, après liggéey bi gaaw ñu baral ko mu mu mu egg ñu fàttali rek ni architecture bi du changer parce mmh. que patrimoine la mais li wér te liggéey bi am na ay blocage te décision yi war nañu xool lu ko waral càmbar ko te baral ko. Mhm. am yaakaar ne Ablaye euh, suñu suñu suñu monsieur document dina dem kon foofee ca Sandaga pour xool état des lieux merci beaucoup euh, Malick euh, Thiandoum ñu ñëw ci xibaar yi.